enquête bi yow sax boobu mën nga ci bokk mooy ku nekk am sa documentation boo xam ne gis nga ni kenn koo xam ne li mu warul def defewul nga jël ko photo photo ko wala lenn nga yónnee ko mais tout ça on met on met ça dans les dossiers hmm. ah. loolu loo bëgg a wax kon bakkan yi jot a rot mu mars 2021 bakkan yi jot a rot muy 2021 muy 2023. oui dañ ko war a documenter ku ci def loo xam ne deful ñu teg ñu teg la daan aussi simple que ça loolu yoon. on doit pas comme ça ay nit yoo xam ne dee nañu comme ça rek comme ça comme ñu mel ne nit lañ ay doomu aadama ah, képp ku lor doomu aadama ci sa tayeef da nga ko te loolu sur la chaîne de responsabilité dafa yegg à au plus haut de responsabilité bi fépp lay dem parce que nit ki jug l'élément n'agit pas en en individuel gisuloo kenn daal a dans le cadre de maintien de l'ordre benn nit kese ne moom mooy def maintien de l'ordre il est en unité eh. ba dafa am chef chef boobu dafay jot ay ordre ki ko jox ordre dafay jot ordre donc c'est toute la de commandement ba ci ki ñoom ñëpp tout le monde même celui qui a exécuté moi j'étais toujours dit que exécuter un ordre illégal c'est interdit c'est sa responsabilité sa responsabilité est engagée que dañuy wax ni non day day dem ci loolu amul fenn loolu amul fenn celui qui exécute un ordre illégal en est entièrement responsable il a il doit on répondre devant la justice loolu mooy yoon loolu mooy dëgg loolu la nekk ci texte yi du man maa ko wax de. Hmm. ce sont les textes Ousmane lépp lu ñu wax ci texte. waaye loolu moo am celui qui exécute un ordre illégal en est entièrement responsable. nañ bàyyi xel loolu. ah yàgg naa la wax nañ bàyyi xel depuis 4 mois laa la ko waxoon. waaye. Hmm. depuis 4 bëgguma di wax ne man maa am dëgg. Hmm. su doon sama sago du ma am dëgg ci côté boobu parce que kenn du dee ba mu jur ay documentation mais dama doon alerté mais kenn dégluwuma. Hmm. loolu rek la. ñu mujj laa def ennemi de la république. non loolu wax la Ousmane ennemi de la république ñu ko doon wax. Hmm. yaakaar naa dañoo bëggoon euh, faire plaisir au prince. et puis amuñu ci ah fa nga nekkoon doon fa liggéey ñu mujj la faa dàq. waaye dàq boobu Ousmane bàyyi ko. loolu xanaa non pour nekk wax ne c'est lié quoi comme si dañ la bëggoon noppiloo wala génne la ci li nga newoon loolu kooku man man maa gëm ay conviction ay principe ba sax njortam bëggoon laa jàpp ay nit bàyyi seen ay nit bàyyi seen ay yitte bàyyi seen lépp topp ma man ma war a changer ci nga ci ki ngir lan parce que dàq nañ ma fu ma doon liggéeyee man ma war a changer parce que ñu ngi may wax ne tu es un ennemi de la république dara du ma tax changer tant que li may wax dëgg la tant que li may wax ne réew mi moo ma ñor moo ma ñor dara mënu tax a changé. ba ñu doon xalaat bëggoon laa jàpp it. waaye ma jàpp ma ko yomb na. ah waaw wax ko yomb na Ousmane man dama nekk devant un un mouvement citoyen. oui. en grande majorité des anciens des forces de défense et de sécurité. je ne peux pas fragiliser les gens qui sont à l'intérieur mais j'ai des gens qui sont sympathisants de mouvement qui sont à l'intérieur du système. militaire quand je dis système militaire muy armée gendarmerie hein et même au sein de la police il y qui sont à l'intérieur donc jàpp ma du yomb de ñaanu ma ko sax yàlla ñu egg foofu te gëmoon nañ fa egg parce que président de la République bu ñu waxee loolu pare moom ci boppam recevoir na ma. mooy nit ñi ñoo bëgg a xeexloo président xeex yoo xam ne du xeexam. moom it dafa amee problème entourage. Ousmane problème conseiller la hmm. président lu ko neex rek lañ koy wax. man loolu laa gëm ne président ñi ko wër lu ko neex rek lañ koy wax amul kenn ku ko ci wax li mu xalaat bañ nañ ko ba ñoom ñëpp kenn amu ci xalaat selon la vision éclairée du président de la république hmm. selon la vision de monsieur le président de la république ñoom lan la ñuy xalaat ñoom xam nga loolu mos na am benn anecdote oui Gadio ministre des affaires étrangères dafa nekkoon euh, euh, fële à à l'Union africaine. Hmm. il répétait souvent les termes là selon la vision à un moment mais vous en tant que ministre des Affaires étrangères quelle est vision c'était c'était c'était c'était c'était pas bien c'était pas bien c'était pas beau à voir question yu mel noonu mënu leen ne lépp lépp président bi moo koy xalaat pensée unique warul am Sénégal ah pensée unique hmm. waru fee am nit ki mën nga bañ a bokk ak président bi xalaat mais nga wax ko sa xalaat su ko jëfee baax na su ko jëfewul yow wax nga ko sa xalaat parce que nag décision bi moo ko ça revient mais bu ko wax rek lu ko neex wax ko sax xalaat mais par exemple ñu ko wër ñu bët du ko wax seen xalaat. Hmm. lu ñu bëgg lu ñu yaakaar ne moom la lu ñu yaakaar parce que xalaat du ñu yaakaar. Hmm. comme li ngay wax ni man bu ñu may dàq. oui xëy dañu yaakaaroon ne suñu ma dàqee dafay dafay neex président de la république. fekk neexu yëgu ko sax wala su ko yëgee après la ko yëg wut lu ko neex. yooyu yëpp bëggoon pour nga waaf te yow bokkoo ci ñuy waaf maanaam réew mi metti am fu mu toll nga ni eh, man day. du ma ci waxat du ma ci nangam ndax su ma waxee dañ may lii dañ may lee wax ji day bëri day nangam ñooñu amee comportement bu mel te ñuy kilifa ci réew ñu soxla leen ci ay contexte yu mel noonu dégg yow da ngaa jàpp ni xëy na du yoon wi ni ñuy defee du noonu. Ousmane dama am sama kilifa boo xam ne ko tànnal sama bopp fa kenn waxuma kaay maa ko tànnal bopp maam Abdou sëñ Babacar bu maam Abdou Aziz Dabaax maa ko tànnal sama bopp defal ko sama kilifa bopp. dafa lay wax daf ma dama ko dégg muy wax. Hmm. sooy def loo gëm te mu dëppook dëgg bul déglu la nit ñiy wax parce que sooy déglu la la ñuy wax doo def li nga bëgg a def avancé rek ànd ak dëgg nga dem man si loolu laa nekk. te loolooy régler senegal de. man loolu laa jàpp soo gëmee ne dëgg si nga nekk donte li may li nit ñaa ngi lay wax bul def lii dañ la jàpp dañ la tëj lu wax bul def lii bul def lii demal rek. man nag du ma dénk sama bopp peuple bi de yàlla laay dénk sama bopp <laughs> foofu rek laa wutee peut-être Ousmane Ousmane nee na peuple la dénk boppam. waay man yàlla laa dénk. ginnaaw yàlla nee na peuple bi la dénk boppam. ginnaaw yàlla waaw mais man. ginnaaw yàlla wax na ginnaaw yàlla man ginnaaw yàlla du ginnaaw yàlla du ma ci teg dara. ah peuple rek laa dénk sama bopp yàlla rek astafurlah laa dénk sama bopp ay tëj kaso. Hmm. xëy na jaar-jaar la bu war a yaa bu mu war a jaar rek ma koy ñaanal mu. tegee ko mu ay ñoñom yu bëri ñu teg leen loxo. mais bu ñu tegee ñoñom yi loxo si la ñu waroon xam ne partem xëy na dañ ko tas. là également je faut mettre un peu de bémol. je pense que xaw ma lu ko sabab. mais waroon nañu xaar ba jugement ba jugement am ba pare au moins. ah ba nga xam ne Ousmane Sène ban daan lañ ko daan non wax ma. dañ ko daan Abdou Karim Fofana nee na un acte administratif liéwul gouvernement ci bu bëggee tas mu tas. non je ne dis su bëggee tas mu tas un acte administratif liéwul gouvernement waaw at loolu liéwul gouvernement mais ma je considère ça comme dans le combat politique donc euh, kooku moom du ma ci hmm. mais en tout cas euh, Pastef. Hmm. ñu tas idée la li nit ñi wax dëgg la ku waxul wax dëgg wax safaan. Hmm. idée kenn mënu ko tas mbooloo bi nag mun nañ ko tas par un acte administratif. mais in pensée des convictions kenn mënu ko tas loolu dëgg mooy dëgg tey tey tey soo bëggoon tas raak tas ko mais c'est déjà semé dans les cœurs dans les cœurs de certains sénégalais de ba tax na aussi soo leen bëggoon tey da nga leen tas ko mais loolu doo ko dindi seen xol ñoom am na ñoo xam ne te ñun sax man sax dama ko deful culte de la personne. dañu éviter def culte de di personnaliser affaire bi si nit ki. Hmm. soo ko tasee keneen dem day jógaat demaat ak moom ñu tuddee ko beneen parti. ñu continuer doxal ak seen doxal. fekkee ne pour tere mu dem kenn xamul sax. ndax dina dem wala du dem. ñu ngi wax ba léegi dañoo xam gum kan mooy candidat au Sénégal. mais loolu candidature rek la xam mais xamuñu kan mooy candidat amagul benn candidat au Sénégal il y a des loolu jaaxal la loolu war naa am Passeport warul nekk warul nekk normalul mais candidat tant que conseil constitutionnel waxoon na ne ñii ñooy ay candidat mais Sénégal amul candidat ay candidature moo fi am candidature nag ku mu neex nga ne candidat la man mi su ma neexoon tey ma jóg ne candidat la candidature la candidature wax bokk la candidat da luy tere élection am. oui wala da nga bokk ci njort ni xëy na nekkuñu ci dispositif yi te boobu moytul. jusqu'à preuve du report jusqu'à preuve du contraire le républicain ñu ngi koy doxal jëm ci élection. suñ demee ba toll fu ñu war a déposer déposer date bi. am hmm. date boo xam ne fa la ñu fixé pour candidature yi yem fa. suñ ci eggee te conseil constitutionnel wax ñu ne ñii déposé nañ ñii ak ñii ak ñi ñooy candidat su boobaa ñu door a wax nekk élection amul gis nga man. Hmm. bëgguma di wax loo xam ne. je ne veux pas inciter l'avenir. Ouais. je ne ñu bari ñu ngi wax ci président de la République Macky hmm. parce que tooguñu ak wax ak moom. bu ñu toogoon soppi seen discours. no pas soppi discours doo soppi sa discours mais di nga jëm lu bëri di nga ko jàng ci moom aussi. lu ut ak li nga gis man jàng naa lu bëri ci moom. ah mais taxuma soppi sama discours de. naa la pensée unique maa bañ. <laughs> du ma def pensée unique. li ma xalaat laa gëm di ko wax. Hmm. président su ma gëmee ne lii mu nekk nii wala li muy def nii. man d' accord ma ci am naa ay pour wax ko ne d' accord ma ci